la man la man la bu boobaa du ko defee noonu man yow la yow la yow la te loo ma fekk la ca man la man la eh yow la yow la la man la boy ah man teel naa ñëw de hmm? man teel a ñëw ba ba léegi booy bi di tàng di tàng di tàng jër boy may ma fanaanoo sëkkat nga moo ma nii boole sëkkat ak soj ma ne xaw ma dem hôpital xool sama yaram. ma dem hôpital waaw balaa jóge nii. Ah. heureusement yàllaa ma dimbali. gars xool nañ ma xam ma sama voyage barki démb bi. waaw ba ma demee voyage maa jégi-jégi sax ñu woo ma téléphone. Hmm. ne ma ndax yaa duggoon ci cette place numéro 51 ma ne waaw ñu ne ma ok. daa amoon benn cas communautaire quoi. cas communautaire waaw ndax da ngaa xam cas communautaire man cas communautaire waaw man de ah, loolu ko lekk depuis Casamance. cas communautaire. waaw xam nga ma ne loolu moo la dal man leen ah ok pour man sax. cas communautaire moo la dal. waaw loolu lañ ma man leen ah, pour man sax loolu feebar bu garaaw la. feebar bu garaaw la kay. non cas communautaire dañ ma ne déggoo li ma wax. dañ maa woo waaw ci coronavirus bi nii. waaw loolu lañ ma wax ñun ma daan am cas communautaire ma ne ah. <coughs> déet bul saxat cas communautaire lañ la wax de. waaw déggoo li xanaa déggoo li ma la expliqué booy. kon yow da nga am coronavirus. non non ah kay aw ma corona booy ka communautaire la am. loolu corona de corona corona ak cas communautaire daa bokk dañ ma ne ka communautaire moo la dal cas communautaire. mané ah pour man nga ay bit mo xon da nga corona da nga corona nga nek da nga corona boy bokul boy nak yow rek do deg li ma la wax médecin bama duggé dañ ma tek fi ben affaire ni ah waaw waji xol waaw sama température waaw man yalla mo ma dimali boy 150 la nek suma nekkon 200 de température waaw 150 151 151 mune ma am ko sax bu nekkon 152 nga nga way mbay 151 ok abare waji xol ma ñu ne ma noonu naa dugg si biir ma dugg si biir ñu tegal ma dugalal ma fi benn affaire kepp ma kepp ko nii ay 6 minutes ma toog di leen déglu di leen déglu waa ji ñëwaat génnee affaire bi xam nga jël sama deret dugal ko ci juróom-ñaari laboratoire yu bokkul bii nekk deret bu ñuul bii nekk deret bu weex quatrième bi nekk booy ataaya loolu moo ma dimbali te ataaya bu du lawal bi de troisième xam nga ma génn. sa deret moo nekk ataaya. waaw après ma génn gars yi woo ma yóbbu ma ci chef bu mag bi mooy quatrième étage. ma yëg quatrième étage ñu toog waxtaan mu ne ma yow am nga sens ma ne ko woy man de gars tiitoon naa sax xam pour man dama am corona mu ne ma non non woo quoi. mais danaa am cas chef ma ne ko non ah, ah yee mu ne ma corona woo cas communautaire moo la dal ma ne ko alhamdulilahi rabil alamin mais cas communautaire si corona yi la bokk de. non bokku ci bokku ci génnee nañ ko ci barki démb. ñu ne cas communautaire lañ génne ci corona waaw loolu la ñu wax ñu na ci bu ba ko ci cas communautaire garaaw ma ne ah yooyu su ma waxoon corona. les cas ah? moom. cas contact. cas contact waaw. si lay bokk boole nañ ko ci liste bi. mais fu contact bokkee kay communautaire bokk. bokk ci. ah kay booy booy man su ma corona woon dama lay wàll. yow kay yaa ngi may bëgg wax. ok ok jour ñooy toog. waa ji nee na ma cas communautaire corona nga bëgg ne corona la. xam nga nit ñu demoon foofu 5000 personnes lañ. 5000 personnes lañ doon testé. ñëpp génn nañ jàpp nañ 4975 yëpp man rek maa tane. kon da ngaa daw ah. non non daw ma mujj ma am cas communautaire laa am loolu la ñu wax cas communautaire ñu ne rendez-vous suba may man suba moom wóoru sax ma dem damay changé hôpital may changé hôpital donc hôpital boobu ma dem daal ñooñu seen ba mooy loolu ñooñu xamuñu dara xamuñu dara. yow yow bi nga def attends defal naa yow bi nga demee cas communautaire la wala cas communication yow cas maanaam cas cas communication nga am du cas communautaire. ah parce que bu doon cas communautaire nga am dañ lay non non déggoo li ma la wax. dañ maa damaa dem egg démb ma kii xam nga sama voyage barki démb bi. waaw ba may ñëw ah. ba may ñëw man kay dégg naa la dégg naa la oto bi ma duggoon. waaw oto bi ma duggoon xam nga booy dugg dañuy enregistré sa numéro téléphone enregistré sa tur damaa toog ñu ne ma allo kooku patin. ma ne waaw ñu ne ma na def ma ne maa fi ñu ma waa hôpital ñoo la woo man leen ban hôpital la xam nga ñu ne ma hôpital suuf si suuf hôpital suuf si man leen ah waa suuf si na ngeen def ñu ne ma waaw ñu ne ma dañ laa soxla ma ñëw si laa demee ñu ma bokkaloon oto bi ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom dañ leen téye wala ñoom ñëpp dañ leen téye ñoom ñëpp dañ leen téye léegi nag après si laa yéegee ñu xoolal ma sama affaire yi température yi dugg naa ci duggal nañ ma ci ay laboratoire jël affaire te lu ma gën a wax man waa ji ba ma piqûre ndax yàlla moo ma dimbali ni sama per père noir bi la piqûre sa père bët waaw bu ñuul bi fa la piqûre man loolu moo ma dimbali xanaa da nga amee cataracte ah non non man foofu ki ma testé foofu la testé foofu la jël affaire dugal ko ba mu sës après mu rocci waat ko léegi deret ñoom dañoo soxla woon deret bi nekk fii si yuur bi léegi ci la génne deret bi jël ko yóbbu ko si laboratoire 1 laboratoire 1 tourné ko ah. ñu génnee ko laboratoire 1 yóbbu ko 2 2 ah. tourné ko ñu jël ko foofu yóbbu ko 3 ba ma demee ba 5 ba ñu ko dugalee 5 ataaya moo doon kenn mais ba ñu ko kiiwee ñu ne ma ok chef bu mag bi woo ma ci kaw si laa yéegee ci chef bi mu xoolal ma seet bi ne ma dara jotu la ne ma dara jotu la xam nga cas communautaire kese la ma ne ko ah ok ñu ne ma man naa tëdd foofu ñu defal ma ay butéel ma ne leen non les gars yi toog foofu bëgg ma fa tëddloo ma bàyyi ba médecin bi génn man ma après ma ne xaar ma génn ñëw ci laa waaxoo nii ñëw ci laa waaxoo nii ñëw man kay yàlla dimbali na ma. yàlla dimbali la kay. musuwaar bi sax après ñu jox ma. mani mani. jugal delluwaat hôpital. lu tax. cas communautaire nga am. waaw. coronavirus la. booy xam nga coronavirus nga am léegi xam nga mooy problème bi ah léegi génn génn demal sa comme comme yow damay toog yow wóolu woo ma demal man su corona yaa nga corona ñëw rek may ñëw rek oto ma dugg am na cinquante personnes ba may ñëw kon xanaa wàll naa waa oto bi yëpp may ma waay nga naan ma ay corona ban corona wu ma de corona wu ma corona defu ma ko waaye leen loolu waay te am na corona bi am na feebar bu bees buy ñëw fii am na benn feebar bu bees buy waaj a dugg ci Sénégal bu tudd Yaya virus Yaya virus. Yaya virus corona la. magu corona la waaw léegi naa nag du dal ko xees ku ñuul rek lay dal mais boo nag nga def attention waaw du dal ko xees day bañ ko xees. waaw kon bu papa virus ñëwee. du dal ku ñuul ku xees lay dal ñu xeeral ñu sa genre gi. waaw dégg nga nga ko mettre moom it day waaj ñëw dégg papa virus yow yow la nga wax xam nga mama Wow, yaram bi bëgg tàng waaw léegi nu ñuy def waaw clip bi xam naa dootu mën a dem clip bi waaw am ah, kay dañ koy tourné non tey nga ah kay na tey nga waxoon ko semaine prochaine samedi prochaine non garaaw léegi na def trois cent mille comme yow da nga xoon ay trois cent millions nga ciy def te ba léegi trois cent francs sax génne am gi ngay wax ak amoo. ba commencé woon naa defar décor yi de. décor yi lan. décor clip bi. néegu ñax yi xanaa sa xel. non non si sa xel. xaar néegu ñax yi commandé naa ko commandé naa avion bi nga war a yéeg mooy. comme yaa commandé avion moo war a yéeg. bi nga war a yéeg. si sa xel non ah, avion carton yi mooy boo ci yéegee xam nga mooy ba ñu kon ah. yow xam naa ne am na loo la koy nëbb. kan mooy ci avion boo xam ne mu. bu laal waaw dama lay wax. bu laal waxal rek de bu laal. est-ce que man tudd ma Patien du sama tur dëggantaan man maay Amady Youssou Ndour man la doon way oh Amady Amadou Sestima. Youssou Ndour ak Kumba Gawlo Seck. <laughs> yaa way na ma Kumba Gawlo ma koy waaye Youssou Ndour way na ko ki Youssou Ndour way na ma. sama sama deuxième tur bi Birima boobu ñu bëri xamuñu ko. ok kon daal su ma la déggee instant bi ban tur nga fi mu toll nii. man actuellement Patien maa changé sama tur maa ko changé mais bu njëkk ba Kumba ba may way Amadou la woon. kii di ma woy mu nekk Birima actuellement maay patin. maay patin waaw maay patin. yow est-ce sa patin gi doo ko changé. ah daf ko pitin. Ah, damay may laajte rek patin gi changé ko def ko pitin parce que. booy man damaa feebar tey te yow da ngaa wax barki yàlla. kan moo bëri wax yow da ngaa bëri wax te wax ñu bëri baaxul xanaa xamoo yow da ngay toog fii di fen rek xanaa xamoo fen baaxul. mooy <laughs> yaa ngi dugg yaa ngi commencé dugg si métier bu bon. yow ya yow li ngay yàq. yàq waxal doomu ngay yàq ni métier noble la fen no noble la te yaa ngi koy fen dafa am valeur. mais yow su dee fen yow la ñëpp xamee fen. kon li may wax ni ay fen. nga ko jàppee ok c'est fen kan nga. Ah, ok jërëjëf waxal loo neex man maa ngi man maa ngi tam biir néeg. da eh, yow kay ngaa dem ma dem. Ah, waaw lenn laa lay yëgal. Amadou. tu es Amadou wala du Amadou ah. ah, waaw Amady Amady Amady. waaw ah. ku ma gënoon la Amady Amadou Amadou. waaw gestuma loolu la waaw jàppul tur bu baax mais Amady la. Birima yow Birima waaw. Birima gaañu na de. ah dee na ah dee. Birima dee na non ni wooy Birima. de kooku moo gaañu mais Birima deewul. wala sax man a fan gaañu. Birima moo gaañu Birima moo dee. ah bon. léegi léegi laa lay wax nag léegi man ak yow xam naa ne moom man mooy loolu. ah ok. bay xaar xam nga que ñoom seex nga wol ma sama copain boobu. seex waaw waaw xam naa seen jaar wol ma ko. pour lan. sama gaañal la. la ko. baax na xanaa amoo téléphone. waaw amoo sax man crédit mango laa yor abonnement boobu bëriwul fii yéen man mango may ma sama jàmm. oh ndax yàlla sax xaw ma lu ma kilibee lu ma yeewoo sax du ma ndékki nga naan ma